asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk jullit yi bokk taalibe yi bokk yi ni seetaan bokk ni déglu bu nga gisee jotaay bii xel yépp dellu ci bisub jàmbaar lislaam muy kan Cheikh Adama Gueye jàmbaar suñu Bamba Xaadim Rasul jot na ndigal ci suñu Muntaxa Mbàkke xalifa général ku murit mi ñëpp ñaanal yàlla yàggu gànd ak wér ñëw nag ci suñu Modou Gueye mi xalifa sëñ Adama Gueye ak njaboot Cheikh Adama Gueye gépp muy lan bisu cant ak bisu ñaan ak bisu fàttaliku bis bi nga xam ni sëñ Tuubaa Seexul Xadim ci la ñëwoon Mbàkke Kajoor seet si taalibeem ba Cheikh Adama Gueye mu dëppoo ñeenti fan caw kori bis boobee bokk yi moom la dëgmal fas ko yéene woote ànd ko bokk yi ànd ko jullit yi ànd ko taalib yépp kàddu gu njëkk gi daana ko jébbal sëriñ Ahmadou Gueye day wax ci mboolem kàddu sëddi Cheikh Adama Gueye bu gi sëriñ Moustapha Ngom wax ci mboolem ndongo Cheikh Adama Gueye ak daayira yi ak soppe yi bu noppee jëbal kàddu gi sëñ Gora Gueye def ci askanu mbaabu wépp bu noppee jëbal kàddu gi nag soxna Ami Diop wax ci kàddu soxna yi nu noppi jëbalal kàddu gi nag sëriñ Cheikh Magueye Gueye mu wax ci kàddu sëriñ Modou Gueye mi xalifa sëñ Adama ah, li waree jotaay bi nag mooy fàttaliku bisu màggaluk Mbàkke Kajoor gi nga xam ne moom la sëñ Modou baaxoo ànd ak mboolem njaboot gi di fàttaliku bis bi nga xam ne moom la sëriñ Touba radiyallahu anhu jóge woon sànnu si jaar ci barab yi mu jaar ba agsi ci ñeenti fan ci kore wi mu agsi Mbàkke Kajoor ci barabu taalibeem ba Cheikh Adama Guèye bis booba nag la mbooleem njaboot ko Cheikh gépp ànd ak Sëriñ Moodu di ko fàttaliku ci ñeenti fan ci kore wi ñi ngi wax nag ci turu suñu kilifa gi nekk suñu ginnaaw muy sëriñ Maguèye mi wax ci kàddu sëriñ bi di woo mbooleem ñi nga xam ne ñooy njabootu Cheikh géey gi ak mbooleem njabootuk sëñ mëggeey jama ak mbooleem njabootuk Cheikh ma baabu ak sëñ Malick Assa ak waa kër Demba Awa ak mbooleem képp koo xam ne surub Cheikh Adam ak noo ci satoo di ci woow ba tey mbooleem taalibe taalibe yi ci kër yooyu mati milim muy kër diggante kër seexaadama Adama ak Cheikh ma baabu ak sëñ Malick Assa di ko fàttaliku muy bis boo xam ne baaxoo nañ ko def eh, ci ndigalal sëñ Modou ànd jiwri nim ji suñu ginnaaw di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi may ko ak wér ba mu gën ñoo mën a taxaw. ñu ci woo bépp daayira boo xam te ne sunu mbégte sa mbégte la euh, ku ci lu ci mel ni waa daayiratu Miftaahul Xayri ak waa daayiratu Nihmat Rijal ak sahru Ramadan ak waa daayiratu Miftaahul Muna ak waa daayiratu Mawaahibu Naafion di woo képp koo xam rek sunu mbégte sa mbégte la ndax kulim da ngay juum di leen bàyyiloo xel bu baax na rek ñoy waj magaluk cheikh adama gi nga xam ni ci ñenti fani koor yi lay doon di saku teway bi ñepp di saku teway bi ñepp di ñaan sun borom yóbbu ñu ci ci jamm ñu genn ci ci jamm ci doole cheikh adama gi di saku tamit wa daire soppe cheikh adama gi bi nga xam ni ku fa ñew seen gan la ñu gëna gogolu bu baax baax ci taxaway bi nga xam mom lañ wara taxaw taxawu gan ñi maam lu melni ni teeru leen teral leen fas yéene leen a gunge ban delluwaat ci bari bi ñu won may wax nak ci turu mbabu gep tambalé ko ci kër Cheikh Adama tek ci kër Cheikh mbabu ak njabotam Cheikh malik gey ak mam Serigne gey ak mam sey Modou ndjay gey ak Demba aw gey ak ñi sant Jaw ñep ak Tànje Ngeen ak ñi sant ndjay mbolam njabootu babu ñi ngi leen di fatali bis bu tedd bobu nga xamne moom lañuy woote ci Mbàkke Kajoor mu dëppoo ak ñeenti fan ci weeru korite ah di ci woo li tàmbalee kër Cheikh Mouhamadul Moustapha Mbàkke nga xam ne mooy xalifatul awal ci kër Serigne Touba radiyallahu taala waaye di woo Cheikh sépp bayuñ kenn la tàmbalee ca Cheikh ja àndoon ak Serigne Touba te àndoon ak maam Cheikh Adama ci ëttub Serigne boobee ñu ngi ci woo ñëpp di ci woo yi di woo taalibe yi di woo xarit yi atum baabu nag ñooy woote jataay bii di ko fàttali ñëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ak ndaw bëgg ku nu ci teewle ku nu màggale suñu bisub maam boobu suñu kàddu bu jógee nag mi ngi jëm ci waa daayira soppe Cheikh Adama Gueye maa ngi wax ci turu jigéen ñi wax ndaxte ñoo ngi woote Mbàkke Kajoor ci ñeenti fan korite ñoo ngi woo jigéen ñi ñoo ngi woo góor di woo jigéen. di wo képp kuy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah ñoo ngi lay wo si bis bi bàyyiwuñu kenn sama mbokki jigéen ñi maa ngi leen di soññ di soññ sama bopp nañu góor góorluwaat bu baax ci liggéey bi képp képp koo xamante ne si ne daal jàppal ne boo manqué rek màggal ga dana am lu fa des nañ taxal nañ laxasaayuwaat takku liggéeyal cheikh aadama xam ne jàmbaari lislaam lañuy lañuy woo na ñëpp jigéen ñëpp maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn nañ góor góor góorluwaat jàpp ci liggéey ba berndeel gan ñi teral leen teeru leen teral leen ci turu sëriñ Modou Guèye xalifa Seex Adama Guèye ak mboolem ay rakam sëriñ bi dafa wax ne bis bi ko gën a ñor ci àdduna mooy bis bi nu dëgmal ci ñeenti fane koor yi mooy bis bi nga xam te mooy bis bi sëriñ Touba tiimee Seex Adama gannaaw bàyyi ko ci géej gi hmm. sëriñ Modou wax na ne bis la boo xam ne itte woon na mboolem ñu bokkal mbaw bi ñëpp nañ ko jàppale maanaam ci bis bi ak mboolem taalibe mbaw bi yëpp nag góor ak jigéen mag ak na bu kenn des waa mbokk yi nag ñoom seen bopp nañu xam ne kenn amul lu ëpp maanaam bis bii noonu la ko sëñ Mour waxee bis bii sëñ Mour wax na ne mboolem mbokki mbaw bi nañu maas xam ci boppam amuñu bis bu toll bis bii bis yi ñuy woote nag bari na di ko wax si turu Seex waaye nag lay dëgg te dëgg bisub Seex moom mooy bis bii nga xam ne ci la ko sëñ Tuubaa mu tàdd ma di sa ab sëriñam bi mu bàyyi ko fii fi àdduna jëm ba sàq di wuy sa borom tabaaraka taala fekk sëñ bi nekk ci biir géej gi bi sëñ bàyyi ko ci géej gi bis bi mu ko dikkee tiim bis boobu daa mel ci bu mooy bis boo xam ne ku yëngu jëm ci xaaram bis boobu nga war a yëngu maa bis bu maa doon nañ xam ne bis bi mooy ndey bis yi kon nag sëriñ mu wax na ne bis la boo xamante ne bii bëgg na ñëpp maase jàppale ko ci bis boo xam ne bëgg na ñëpp fonk ko ndax wax na ne benn bis bu ko gën a yor bis bi maanaam amul kon nag wax na mi ngi ci woo góor di ci woo jigéen di ci woo mag di ci woo ndaw di ci woo yoonu wépp nag farfar nag waaw ginnaaw bi ñu ci wépp nag dafay noo ngi jiital ci boote bi nag ci yoonu murit kii boo kii sëñ Tuubaa dénk ko yoon yi muy Cheikh Mouhamadou Mountakha ak mboolem njaboot sëñ Tuubaa ak mboolem seex yi nga xam ne nii bokk nañu Cheikh Adama sëriñ Tuubaa kenn desul nag ndax kulim juum waaye sëriñ mu wax na ne booteem bii bàyyiwul góor bàyyiwul jigéen bàyyiwul mag bàyyiwul ndaw ak mboolem ci koxante bi sukk nga jébbalu na nga xam ci boppam sëriñ sa sëriñ bi nga xam ne mooy sa bunt ci sukk jébbalu muy Seex Aadama bisam boobu ci boppam ñor na ko te moom moo fi Seex Aadama kon na woon ci ñëpp itoo woon ci bopp ñëpp mas ci teew bis boobu nag bis la boo xam ne sëriñ bi wax na ne des koy waajal li ñu koy waajale nag mooy nañ ko waajal ci jàng alxuraan ak jàng xasaayit ak salaatu alnabi ak lépp waaye xam ci lu baax loo xam ne boo ko seet dana jëriñ maanaam way jiitu ya wax ni ci boppam su boobaa kuy ñëw na nga ànd ak pas-pas boobu ak yéen a jooju fas yéen ci boppam tabal sa ñaan ci li ci liggéey bi jëmee ko maanaam bi ci jëm yu jëm yu baax yooyu ndax bis la boo xam ne kat bisu sëñ Tuubaa la bis la boo xam ne ni bis la boo xam ne boo ko seet képp koo xam ne sukk nga jéblu rek jàpp na ci am nga ci wàll soo teewee am nga ci wàll soo teewul am nga ci wàll kon jàpp nañ ne ku teew am nga ci wàll waaye ku teewul am nga ci yéene kon nag ñu sëriñ bi naa bëgg na ci bopp ñëpp jàpp ci lu waay man ci luy xam ci boppam si bi luy berne la baax na waaye lu waay am lu waay xam ci luy tax ci boppam muy ak ñaan koo xam ne saa moom ne ko nangu jëme ko yooyu jiitu ya itti woon na nga ñaan ko ci jëme ko ci jëm jooji ak mboolem ñoom nekk ca barsax gépp ñari ay doomam ñari ay sëtam ñari ay taalibeem te mbokk nañ ca barsax wax na ci boppam moo ko gën a itteel ci mboolem li ñuy def maanaam ci bis bi kon nag wax na ne na ñëpp jàppale ci bis bi waaye nag na ko ñëpp jàppale ci ñaan loolu nag dafay loo xam ne doolee saako ci ndax muntu ñàkk ndax mel na ni maam boo ko seet maam moom rek moo war a bis bi kon nag sëriñ bi wax na ci bopp mi ngi ciy di soññu maanaam mboolem ñu mu tudd di di njaboot sëriñ Tuubaa gépp ak taalibe ci Tuubaa wul ñooñu ci bay wul mag ak ndaw rawet na nag ñi nga xam ne ci boppam dañ caa sëtu moom waxaale wuñ leen diggante góor ñi maa ngi ndaw ji foofu waaye dégg ci boppam sëriñ bi kàddu yii mbaa ma xam ne moom ci boppam teew na ci gis gis na gis na eh, appel appel bii tam bokk ji na waaj jëm ci bis bi ak nu mu war a waaje nag ak te mu wër ko ci boppam xam ne nii la war a waaje na waaje woon ci boppam jëm ko jëm ko ci bis bi donc ñaan sax borom tabaaraka wa taala àggale ko ci jàmm ñu tàmbale ko ci bismillahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin mu sotti ci leet mel nu rom mosa nu mosa mel te kin koy def ci boppam ta yàlla nu yàlla doon dimbal taas na ci barkeem ci barkeem sëñ Bàmba wa ji sëriñ sëriñam ba bis baa ngi noonu kañ lay doon ñeent fan ci kor yi bisu jullit yi bisu taalibe yëpp ki nga xam moo jëkk a jox sëriñ Tuubaa Seexul Xadim boppam di Seex Adama Géey moom da leen di wootal bis ca Mbàkke Kajoor loolu nu toog jataay bi di ko woote dégg na kàddu yi fi rot ñu ngi ñaan yàlla saa borom yóbbu nu jëg jàmm darajey Seexul Xadim li woo ñëpp nag bàyyiwunu kenn bàyyiwunu fenn bàyyiwunu ñenn rota ñi nga xam ñoom la dëkkal Mbàkke Kajoor waaye ku tul Mbàkke Kajoor saxalam ci sëriñ Baara Mbàkke borom Mbàkke Kajoor doomi Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu koy gël si Mustafaa mi xalifa bi ak njabootu si Muxtaar gépp ku ci mel ne njabootug borom daaru muxti maam Cerno Ibrahim suñu abbas di ko laaj maam Cerno moom suñu Cheikh Awa Balla waaye di ko yëgal njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall ñi du suñu Cheikh Fall ak suñu Cheikh Ndigal Fall waaye di ko yëgal sa njabootug Cheikh Ibrahima Fall Njaañ Jasag gépp bàyyiwunu kenn bàyyiwunu fenn di ko yëgal mbooloo fu mbokk nekk fu taalibe nekk rawatina nag mboolem ñi nga xam ni seeni maam jaar nañ ci kër sëñ Tuubaa xaar ba am fa ngërëm ñu ngi la woo ci bis bi nga xam ne bisu jàmbaar la bisu Cheikh Adama départ bi nag kañ lay doon bu ne suba sët yi dan dan takkutoo àndandoo yëkkatoo di tegandoo fuy départ kese Cheikh ma yi te Daaru Marnaan taalibeeg dongo yi départ fii ci kese Modou Gueye bu ne suba la ne demee fanaanee waajal bis bi ba seenu ne ci njàngum alxuraan njàngum xasida ak durus ak yëkkati ak i berne ba digg bëccëg nu ko ne siyaar yi ak saabante yi bu ne ba ginnaaw timis waxtaanee fa waxtaanu diine ku ñu koy defal Sëriñ Bakk Abdou Rahmane borom xam-xam bi akan serigne ahmadou bass guddi serigne moussa bassar sey ak serigne abdul had sar kiko falana nak moy aladi khadim gey jangat di mbok ci kër gi di wala ci kër di xala ci kër gi waye di lepp kër gi kon yi ah bis baangi nonu kañ lay don ñenti fan ci kori fa la xeye mbak kajor dama ni ku fa dekk gën ku fa gën wota fep bayul fen wota ñep bayul kenn ñu ngi ñaan ci dara ji señ touba ak barkam jambar jojé njëkk dox boppam suñ bamba ku fi ñëw ku ne yàlla yàlla fa si aajo dara yi Seexul Xadim suñ bamba da nga fa dikkal nag ma Kajoor gaa yi ñeent fan ci kor yi la Seexul Xadim bàyyi ko sando si njaan njàng jaw jóge fa jaar Mbàkke samba baabu dox ba ak si ci barab boobee seet taalibam nga xam ne fa taala kalaaw bi Seexul Xadim demee ci géej gi atum 1895 ci la jàmbaar jëdd kaal boromam kon daal mbokk mu duggee woote bàyyul kenn bàyyul fenn taalibe yi biir Sénégal biir Sénégal Ndakaaru fukki fan ak ñeent ci biir Sénégal ñu ngi woo ñëpp di ñaan yàlla ku fa teew ko ne su borom fa saajo barkab si xaanam Gueye wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa